yaay ngoone Baye Ndiol wéragul ba tey. ba tey doom yóbbu naa ko fépp gis naa ñëpp def ci li ma yoroon lépp kenn xamul lu ko jot waaye yàlla baax na. ndax da ngeen di yaakaar yàlla rek te yam ji. Baye Ndiawar pexe amul. sa yaay nag nu mu def. baa mi ngi tane. yaay ngoone sama yaay amatuma si moom benn yaakaar ndax feebar bi mën na ko ba noppi bu ñu tàyyi. ndax yalla du jangal ku yem mm. ta du jox safara ku jàmbat mm. rax si doli nit ni tay garabam baxna ma mm. ngi dem jef nga nuyul ma sa yaay te nga jotali ko sama ngànt ah. doomu borom bàmmeel bi sama yaay doomu borom bàmmeel bi yaay yaay kan moo la faj. doom borom bàmmeel bi. kan mooy doom borom bàmmeel bi. kenn bëggul mu sëñ Moustapha si kan mooy kenn bëggul bu sëñ Moustapha Sy. fan la dëkk. tableau Tiwaawan. tableau Tiwaawan si fan. kan moo ko xam fii. man nii maa mhm. kooku ay xar baaxam wër na réew mi. Mhm. lu nekk da faj ci réew mi. te boole ceeb moo des. fan la dëkk. maa ko xam. mun ci tawat mën ci poos boo bëggee dégg dëk da lay seetal gisal la fajal la te doo buxante. may yàlla la ah. dama dama moom du ko ko wax. Eh, taxawal. du faj dama dama nag. loolu dong la fi bàyyi. Eh, dama ni euh, waxi mag dina day teen bàkk war mbaam. eh dama ni cancer. da koy faj. Ah, ah, jabet. da faj. ndoxum siiti. da faj. Eh, da faj da koy faj. feebar bu nekk ci yaram. da faj. góor gu tëlee dax da koy faj. man mi moom a faj. moom moo ca loo ca xamul. Hmm. ni mu mënee ci faju hmm. la mënee ci faju poos. maa la wax eh, comme moo la wax ne mënul dara ci dama dama. moo ko wax. moo la ko wax. waaw. waay. Diop. Ndiaye. waaw. fii kin bugg mi moo honnête. yow foo nattu honnêteté dem rek weesu na ko. kan muy gëm sëñ Moustapha Sy da doo honnête. dama kaa gën moo xam. gis ngeen lu amul seede neexul mhm. man mii di wax ak yéen commerçante laa waaye biñ ma booleeg moom ba mu jëflanteeg man ba bàyyi mhm. laa xam ne kii xam-xamam kenn du ko naataab man mii damaa bëgg tukki am problème këyit kër numéro man mii xam naa numéro ñaa mhm. jox 77 waaw waaw 502 15 63 bu dee cas agence la nag. père cas urgence. cas urgence. maanaam soxla bu ni kët ni jël. mënul xaar maa wax loolu. jëlul jëlul. 77. 030 030. te tàggoo woo hmm. ku mel noonu laay wër. doo déggee vite fait. Hmm. si si mooy vite fait. Hmm, <laughs> un bis lay fajj jëlal hein, mardi. mercredi. jeudi samedi. le ko 9h ba midi. dimanche mom ba su fex la. ci mhm. lay fajj Je yépp la yeneen yi ma la wax da mhm. xol la xol sa biir. Mhm. xol sa biti. wax la ci yow. dimanche nga ñew ak xaaral ma dem wax ko yaay Ngone. Mhm. mu yóbbu fa bàyyi njawar. fi mu ne kay toogaay amatul demal te ñëw. eh eh eh eh. eh duñ fi bàyyi duñ fi bàyyi ñoo publicité. waaw yow kenn bëggul mu sëñ Babacar. mu sëñ Moustapha. ah mu sëñ Moustapha. waaw waaw jërëjëf jërëjëf waay. eh yow bu ñu topp de da ngaa dam. da ngaa damm. doo soppeeku ci yàlla. yàlla jërëjëf sant naa bu baax a baax a baax a baax. sampoon yee te dëgër na borom bàmme wa barakaatuhu internet yi safoo Ken Bougoul TV fu waay mën a nekk rekk fekk naa la fa tàllal la samay yoxo di la ñaanal jàmm delu siwat na benen yon ci salle bi di sak pexé ngir jakarlok ken bukul bu cheikh sayyid al mustafa si al maktoum ci fatali gi nga xamni ay bes gu nek daf koy fatali askan wi ngir yalla ak ñi fi jof si bañ di joom joom te lu bari ndax ñaare man na la yakal lu nga xamni loko won mo waral mom itam jogul ben yon ci di fatali askan wi yan règlement mo teunk pacc mi tay ñu fasiyene waxtaan ci ñenti ponk yu nga xamni dina len soxal lol serigne bi laata bobu rek nuyu na la nga askan wi ñu tambali waxtaan wi sëriñ maa ngi leen nuyu di la ziara euh, di la ñaanal ba ci ko jàmm ci kàttanu suma borom. jërëjëf may itam maa ngi lay ñaanal jàmm ju sax dàkk sëriñ bi ponk bu njëkk bi ca gannaaw danga nga waxtaane woon ñi nga xam ni dañuy am ay blocage yu doy waar te ci baree bari léeg lekk ñàkk làpp moo koy indi moo xam góor la wala jigéen. rawatina ñi nga xam ni dañu nekk ci néegu sëy mu am nag ñu nga xam ni jafe-jafe bi ñu am moo di kañu nekkal fonkul laab wala bokk xamul sax luy laab moo xam soxna su tubaab la am wala boroom kër ba di tubaab xëy na miinul laab euh, loolu sëriñ bi dafay am ci nit ñi dafa am ñu nga xam ne laab moom bokkul ci seen i mbir am ci ñu nga xam ne nag jotoon nañoo jëflanteek yow am boobu la jafe-jafe ñoom nag ñooy laaj ndaka la ñuy def ndax garab ya yàqu nañu wala am na beneen solution bu nekk ca wet ga. laab bu man sax alxuraan moo njëkk santaane jullit wala nit dafa war a laab man mii def ñaan dama jël turu yàlla ak sunguf jox la bu ma la joxee fekk laab nekku fa soo waroon am cent point huit point ngay am mais lim daw dafa bari te yow da ngaa fay budget cest que bu dee tey def-def mën naa ko dindi ci jooni jooni nga jóg fi bu dee ubbi mën nañoo régler carte gi mu changé tey mais lii changé tey fekk un mois mu defaat retour mais da ngay yëg ne am na lu xew mais ñoom ñim dal reprendre rek mooy solution si loolu nga dégg ma wax la keroog ne moo tax ma éliminer numéro un def benn sànni muy benn doj. buy jam ñetti picc mooy numéro 2 bi ma lay jox lépp ci jat laa koy liggéey laalu moo tax sunguf ak i parce que atum ren li des du dootul man ak sunguf xanaa fin d'année wala année bi jeexaat moo tax ñi ko laaloon wala ñu joxoon garab yi ñu amoon jafe-jafe boobu noonu meilleure solution mooy reprendre menak kira kii reprendre ndab yam don songo ak ndab yi duñ bokk parce que ndab yi moy gëna wacc moy gëna oyof du bokk ak ndab yele en même temps ñom seen sarax disut waye jambar nañ na waye ndab yama la waxon lay marsal mui fay duma xex teunk rap teunk sayatin ba pare fay ubbi mbiri waaye ci kaw lépp ci kàttanu suma borom nag bés dafay ñëw damay essuwe waxtu dafay ñëw damay essuwe waaye du guddi yi du waxtu yi du at yi kon nag kuy dund di xeeñ su dee du mat a wax jërëjëf kon nag yéen ñi nga xam ni amoon ngeen boobu la jafe-jafe kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy indi na leen solution te moo di faw rek da ngeen di tàmbaliwaat traitement bi ndax weneen yoon la leen di jaarale bu bokkut ak ba mu leen jaarale woon kon nag ñoo ko déggandoo Serigne bi ñaareelu tomb bi jamono yi ci gannaaw liggéeyoon nga ay jaara yu nga xam ni at mu nekk benn yoon rek nga koy liggéey muy jaara yu doy waar euh, suivre ngeen émission yi ñu ci def. waye nga defar benen jaaro bu nga xamni ñom ñoom itam daanaka niroo na ak point bu ñëkk bi ndax ñi nga xamni xeyna fonku ñu lap lol moko taxa jog la ko yaq xeyna du bari muy jaaro bu doy war ndax man nga ci indi ay leral wa équipe kay buy gagné la ñuy jël mais équipe timi parfois bu titulaire yi commencé âgé da ngay changer jeu bi waaw titulaire yi laa wax de buñ commencé âgé bu mu bëri ñoo ci am ay blessure ngay changer équipe tegaat équipe bu bees cest que équipe bu bees biy ñëw ñooy ëpp doole ñu ma fi jëlee woon naka njëkk noonu deme demee parce que wax naa la ca gannaaw ne rawaxaan u jint dañu toll foo xam ne ñoom ñooy daw di làqu pour ku leen fat parce que dañoo tumuranke bu mën a tumuranke bi mooy c'est-à-dire que nit bi ñu jox pouvoir mu yow mi faj ñoom ñu jox la ay bien jox la alal jox la moyen jox la ay argument mais sarax yam làmboo sa diggante ñoom doo ko matale waxtu wi ndey laaj doo ko nangoo def dañuy dem ba mujj gi dañuy gedd mais buñ geddee dañuy génn mais ku dul tukki nag doo xam fu dëkk neexee mais ñoom parfois ñu tukki làmb dëkk bu neex mais buñ dajee ci dëkk bu neex dañuy lang boobaa ñoom dañuy enregistré wu ci këru jaamur ba pare ñoom it la ñun mën nañoo def lii ñun mën nañoo def lii mais doo gaaw a jël mais doo leen gedd tamit da leen bàyyi ci biir kër gi boo demee ba yëg ne ñi nga tegoon c'est-à-dire joxe na 9 pour cent da nga leen may leen ma nag ma teg équipe bee bi léegi jël leen ñoom ñoom toog leen ngeen xaar ngeen dem vacances yéen dem leen léegi fii ak décembre may naa leen vacances pour yéen ngeen dem récupérer ji maanaam gëstu ji waat leneen pouvoir indil ma teg équipe bee bi. équipe B boobu di ñëwaat nag ñoom li ñuy installé mën nañu ëpp doole équipe A bi ama dégg ngeen wala dégguloo ma équipe bi ñëw ñoom mën nañu ëpp doole équipe A bi parce que ñoom duñ pardonné ki lay jëw duñ pardonné ki lay saaga ci internet duñ saaga pardonné ki lay xas toog ci biir par duñ pardonné mag mu toog ci ruxam yor kurus duñu pardonné journaliste bi lay ngàññi fu la fekk sànni la malaise dem seen yoon mais yow it da am contrat sa diggante ak ñoom mooy sañoo wéer sa bopp ci kaw lal te salaatu xayru mi naw mi jotu ndax ñu bëri dama laaj sëriñ kañ ngay nelaw dinaa nelaw de waaye dinaa sonn loolu nag waaye ñoom biñ ñëwaatee nag ñu indiwaat beneen façon jaaru mais man ma jox leen samay condition mooy bu ngeen ma joxaat jaaru yi ma war a liggéey du ma laal benn siru umu Moussa parce que ala alalu jamour la pour ma lal ko faaw ngeen bind rapport jox ko ca géej ga mu mu delo ma rapport bi moo tax boo xoolee environnement keur gi jamono bi gisatoo fi gilem mais raba àll yëpp ngi ci keur ba mu gilem parce que ñom ñep dem nañ vacances ñan ngay gis muy golo gu góor golo gu jigéen moo tax boo gis sa gis golo gu ndaw gi tok sel nga ko ah iki <laughs> bay bi lañ bokku ñom ñi supérieur. bokkut ak ña xam ne doo leen gis waaw kus kontra yi ñëw di wane seen bopp ñoom it ñoom ñëpp jàpp ci élection yi ñu ne léegi nag jëla ñu tobb sàngam tobb sàngam bu sàngam sungu fu or sungufu fu sàngam sungu fu sàngam ak sungu fu weñ bu ñuul saal sàngam xam nga saal mooy lan Manam li ne ci bir doomu sumpuy wala doomu ski sal sangam sal sangam ak sal sangam jël ko ba pare utal bakkanu bukki bakkanu golo bakkanu kakatar nga lak lepp bam nekk doom nga def ci jat sangam ak sangam offrir ko lepp naw nga sox jaawri nga xol ñu xol di nga tek ndawal di nga sajj ci kàttanu suñu borom ci fële ma la waxoon la leen daan booleke du la booleke parce que yii même boo ko dugalee ci toilette du toj parce que lépp jat moo ko composé lépp tobb moo ko composé te lépp ndox mu sedd guy lañ koy jëndee ak alal ju bari aa ah. mu tax jamono bii bàyyi ma commencé toll ci faj dama lay wax ne tollu gu ma woon ci faj xamoo sax li may wax te ñii may fal ñii feeg 3 mois dama leen di wàcc tegaat beneen équipe billaahi la si daa ilaaha parce que li ma yor ci ñoom équipe bi war a dox xamuñu toll mais bugguma ñuy buuxante moo tax keroog bi bi attentat bi amee ci kër gi ñoom ñëpp daw ca bassin ba ne ma ñu ngi toog ci bassin bi di la xaar jox ñu rapport ñu extrait lépp ma leen ku ngeen fi gaañ ci man na bokk jaru ko bu ma leen soxlaa élection laa leen soxla ba des budul rek waaw ñu dëpp jaxase carte yëpp. mo taxé bi ñett fa di joggé nga xamné am na ñu jog ah, ah. mais nak duma jog ma ma baagi ma doxal ci kàttan suñu borom jërëjëf mu ngok kon nak mbokk internet yi kenn bëggul bu cheikh sayid mouhamadinil mustafa si ngeen di jàkkaarlool fi ci salu sak pexé yeen ñi nga xamni da ngeen ko yittewoo ben adresse dong la poste caaroy tabla tuyawan numéro téléphone yoy ngay seen ci suuf écran bi ñetti numéro dong la amagul ñentel bo ci woté rek da nga jot kenn ci ndawam wala bok nga ñew ci yi muy mardi mercredi jeudi ak samedi da ko dalé 9h ci suba ba midi bo ñëwee di nga jàkkaarloog doomi borom bambel bi nga diis ko sa soxla mu saytu say mbir xam won yon lay jaar ak yow jërëjëf waaye sëriñ bi jaaro yi day dafa mel ni euh, góor ña ci gën a bénéficié wu loolee dafa mel ni moo sabab nga indi leneen lu nga xam ni jigéen rek ko moom muy ay mbir yu ñuy diwoo ak yu nga xam ni dañu koy takk euh, yan leeral nga ci indi xam nga dama wax ne ñaar am na takkal bu baax li ma lay wax nii doo gis boo xoolee sëtu yaay Fatima yu bari seen PB yi ni leen baag yi teenu yaay Fatima bi moo ci nekk baag bi lan moo ci nekk couleur bu noir ñan ñoo ko ŋànkatee ko muy ay xer poli bi soog a ñëw goj bi soog a ñëw ñu xëcc mu génn xam nga limi wund c'est mystique parce que sen rapport pour ci yenn yi ndax tay tiktok instagram facebook youtube mo leen teural febar laaj ma lutax ngir yalla ak ñaata junni beut ñolay setan Tahu yow sa yaram dara neku ci ndaysan motax ñu bari ñu daan wax ñi am problème voix ñi am problème cancer ñi am problème bir bari na bari na comédien yu ñu éliminer ci loolu leen éliminer tey gum la xew ngir yalla xel mu ay wu waxtif ba ma la waxoon keroog u yamay baña a tudd hôpital yi def analyse yu dul jeex do gëtt résultat ku na nga lu ci bop ta wér du am so demé sen ndig yi fess del ki fas yu dul jeex te yor metti ci ndig parce que góor wala sang bi lay gis ci compte tiktok sax même la umu nop la bu xelam gatte limi ñëk def moy dem seeti ken bëggul mais su démé du wax dëgg bi la ca gënaaw dëgg la lay jox pour ne la diw kat sama li la won mais financé na ci mom lu ne mais tay daf ma wor mais bu la génne la xaaliss fekk nga am problème dépense noy def da ngay récupérer duma doomu jàmbur rek mu tëdd moo tax c'est rare ji nga bu nit ñëwee ne ma dama bëgg sax takk soxna sàngam bëgg nga ñaanal ma ci aadana damay téye sa document génn ba ci maar mbay ne ko nopp wala xemme ban moo ci am ba pare ba nga tontu ma yow nit ba noppi ma ne ko ñoom nañ pelé dossier bi pour ëllëg yàlla xam ne man am naa garantie soo ne ma soxna moo la tax a ma jox la li ma la jox ne la dama nga def ci songu ci léegi ñii ñëpp te di feebar moo war a ñu indi diw bi ak yi mu ànd diw bi bagage la buñ la jox moom da nga koy boole sa diw yaram la di ko diwoo tànk yaa ngi diwoo sa yaram yii ma la wax takkal cat mënu laa bënn xel mu ay mënu laa mu sayaatin mënu laa bënn rab bu la fóone bala fi bu la neexee doxal ba fu la neex nga dem mais ku xam dara bu la fiiroo bala fi bu dee yow jigéen bu nekk ci biir néegu sëy coton lan lay laaj coton huitaine rek nga ut ak fer ngay indaale ko ci huitaine laay def jaddi jël toob bi dafa la ci na demal parfum la neex rek waaw parfum la neex rek léegi nga commencé dégg d'accord on verra allah mom da nga jog si si rek a jógati ker gi day nek. ta sarax bi malay lay génneloo galaas dong lay nek. sang bi yaramam du diis ta faaw mbiri naturaliser wat ta yalla xam na biñ may jox xam-xam bi ci le 10 juin bi lañ mako jangal billahi la ilaha illahu bi ma pare 72 heures ba la ma di wax ka ñu nominé la nak ñoomit parfois ñu ñew bak ma nak ndessane bak ma lol ni ma sonn nga way jambar nga nak ni ma tay dana la joxat benen privilege ni la fi ak fi genn fa nga dem fi mu tax en general bu coton bi suñ ko liggé ak fer bi jox la ko moo wax la ñu ngi koy jëfëndiko même bu da sang bi joxe force day joxe même bu da góor bu moy day ñëwaat waxuma nak jox la ko yow mi nga xamne nga baal ma ci kàddu gi taxawal rek ngay liggé parce que bokku ci mo mbir na manam yow mi ne ak sang mu nekk benn ñaar wala ñett wala ñeent soxna te mu du mooyu la am nga ci solution wala yow mu yàlla nattu nga am sang te nga xam ne yàlla dénk na ko wërsëg mais joxe daal bokku ci mbiram mën nañ ci am solution wala nga nekk ci biir néegu sëy goro wala ñamay bañ a tudd d'accord ne doo toog ci biir kër gi c'est faux fer boobu boo ko yor ñoom ku lu ci mënul jàmm coroxaan moo koy éliminer xeex la moo tax te ñaari parti lay casquette lay jouer mais li di gëna doy war moy fièvre yi daan saw yi resonal yépp lay fanku dem ay bobbi metti ay estomac ay deug liggéeyu jaamur non day xewi ta duma génn dara budul tobb ak sunguf kon nak kuy dund di xéñ su déwé duma ta wax mu ngok kon nak internet yi ken bugul bu cheikh mohamedinil mustafa si ngeen di ci fatali gi nga xamni ay bes gu nek daf koy indi ngir yalla ak njumte baña bari serigne bi ca gannaaw da nga ñu indiloon ay reen yu nga xam ni euh, la wolof di wax ni la mu saf ka ko ko xam waaye ñaka jot a jël ñëpp daal euh, am nañ ci satisfaction bu kawee sax seenu njort muy reen yu nga xam ni dafay dimbali góor ñi ci sëy yi mu bari nag ñuy laaj ndax ñëpp ko mën a am wala am na neneen nu mu tëddee ren yi képp ku a jaar parti 1 e ba am jeexal man nga droit jëfandikoo ko yaa xam ngay xale yaa xam ngay mag nee moom ñett yi lay dox day yokk ndox ci kàttanu suma boroom bu fekkee émuru sa biir yaram lépp ngay tuur ndox mais bu dee émuru bi génn ci biti bu am góom bi du ko faj boobaa savon bi lay ànd ak bu mu ànd liy jot jot na bi mais soo koy naan lekkal naanal na dépense doy fu la coupé nga baatare ci kàttanu yàlla moom doxul ci dara ci feebar bu dul sëy rek lay dox xam nga ren du sunguf ndax ren kenn mënu cee vacciné benn poudre tubaab xooj dong la def ci butéel mu lewet dong lay nekk nga koy naan loo kupp mu baatare ci kàttanu yàlla moo tax ginnaaw bu sàng doxalee ba kër gi dox jënd ren jox ko mu naan nga xool. léegi kër gi dox inshallah allah poos am dara kër gi dox lepp mars waaye lepp nak ci katanu suma borom mais faaw nit baye xel ne ndam nekkut ci loxo ken bugul ci loxo yalla suma borom dong la nek jam rek la bes dina ñew dina essuwe waxtu dina ñew dina essuwe bes dina ñew dina xewi waxtu dina ñew dina xewi kenen xewat waye jamono ji wala waxtu yi wala at yi ku ayé woné sa momel ci nu suma borom gàncax luma ci lamu mart parce que daw outiko uti daw outi si ma kon na kuy dund di xéñ su dewee du mata wax dox lañu dem jërëjëf mu ngok kon nak internet yi ñenti tomb yoyu lañ leen diggoon ni ci waxtaan te yakarna ni ken bugul bu serigne mustapha si def na ci ay leral yu am solo sëriñ bi xana rek kon ma dem ci actualité ñu ko jotay bi sa émission bi nu génn day euh, ba légui ciow la ngi wey ndax da nga ca wax ni am ñaari kilifa ci coalition yeewi askan wi yu nar teud febar bu metti nga wax ni nak dulu hôpital di faj ñu bare bare nak naan ndax amuñu solution bu ñu def ba lolu ñu mën koo gàllankoor euh, yan nga ci indi amon yalla dogal sa parfois duma bëgg diko waxat jam sama ben mbokku bu may yónnee démb message ne ma a ah, nga baal ma de mais ñi nga doon wax diw ak diw ak diw la ma ne ko wax dëgg yàlla nga baal ma rek mais man yàlla dogal cité ay tur da dul sama domaine parce que man opposition bi ñi fi nekk miinuñu ma te aw ma ak ñoom sa relation yooyu noonu ma ne ko waaye yàlla dogal na man bi ma gëm amul ñoom lu ñu ma ëppale bu dee xaalis am naa ko bu dee ay moyen am naa ko kon lu may soxla ci ñoom mu tax dépensé naa fa may waxee la ci ginnaaw dëgg xam-xam moo may teral te mooy la ma wax barki démb sama mbokku Mar Mbay ne ko mag bi xàmme nga ko ba ma ne ko damay bàyyi faj munuma à l'âge de 40 ans de tëdd feebar bi may indi fii samay doom ñoo ma yàpp ci oto forcément ma indi ma mu dimal limal réewu Afrique yi mu dox ci Sénégal yëpp adduna bi yëpp dama waaye ku ma waxoon yaay seppi sama jàngoro du ma ko gëm keroog na ma yàlla baal sama rongañ sax tuuru na mais li tuur sama rongañ mooy mag bi aas bi mu tëdd feebar yëpp booba man juddooguma yàlla cité woon ne ki kay faj juddoogul sa adduna mbokk bi soog maa wax ne ma soo bàyyee faj ñiy takk ay morso yu xonk dinañ bari lool te yàlla mi bind xam na ne ci barke cheikh seydi mahamadou moustapha si bàyyi faj dong la bëgg actuellement bëggatuma ci dara parce que lim jël ci sama temps dafa bari ta lu yàgg bëgg na ko baye motax ma ngi négocier ak njaboot yi nag yin gisut pour ñu may ma privilège yo noonu mais dañu xaw a bop bopp kon ñom ñi yalla nattu ma waxon na ci amna ci ñu tawat ne na def sarax bi ma leen waxon rek ko ci mënul def waxna ko ben kilifa bi mënu ma mais problème bi am moy jot la wala gis la dafa jafé ma ko mais serigne man bu faj dag may gis mais bu faj do ma gis mais après fajj nit ki am yenen privé moy rendez-vous privé am fi rendez-vous privé dafa am lo xam boko boo ticket bobu yow dong ya may gis euro dafa dajé ken fajj sa soxla dem sa yoon ak fo mën a nekk jëru jaar ci kenn woote numéro téléphone dong nga wax len dama bëggoon rendez-vous privé su la neexee kasar satu. sax sa tur ñoom nga wax leen ban heure nga bëgg dana la wax ne heure tel waxaat ñu fekk ñoom ñu bind rapport indil ma ci kaw dinaa leen wax heure ak am rendez-vous dañuy pare waxaata ne heure tel ak heure tel la sëriñ wax nga mën gis gitu. mais soo lu mu ci tawat dinaa ko tegg ci kàttan sama borom parce que man bu doon ku ku ku wala rab jàpp ban une heure une heure du matin la ko ñu ne bu ko kenn laal su ñëwee ma fa wàcc ko mbokk bii toog ndeysaan mu tax fàttali ko am lool keroog bi ko benn mbokk di ko indi ci man mbokk bi dafa ma wax ne ma yóbbu na ko ci noom mi sëriñ sàngam sëriñ sàngam mais ñeen ko yóbbu ñëpp a làq wala ñu wàcc waaye ñu yóbbu ko ci sëriñ sàngam mun a yóbbu leen ko ci kenn duggul keroog ba ma ne ko bu ngeen xëy indi leen béy ma ne ko li laxas ci moom ñi koy wàcce ñi koy dindi di wàcc du man parce que xétu shayatin ni man ak ñom du combat kër bima jappé bay bi def japp bima ma bay bi dafa sedd guy billahi la ilaha illallah dafa ko koŋ taxaw ma yëg ci kaw fekk sama ñett gatt waccat ñu ne ma puissance bi xajul won ci bay bi mo dañu remplacer ko li kon man lumay prouver de ci fajj parce que ma solo xam nga fi may jaar 77 502 15 63 jaxna bu nga wote ci numéro téléphone yi ndaw yi jël la wax ak yow jëru uti benn courtier dinaa ko yóbbu ci kenn dugul jaru ko tablet yo waawoon kay adresse bu leer la lu bëgg bëggati su ma sañoon kenn du tawat su ma sañoon kenn du am soxla ndax moom na ma bàyyi faj dafi lenen parce que bu ma gisul malade damay bàyyi faj bi kon kay sama bëgg-bëgg moy ñëpp wër mais ginnaaw wër ak tawat ño and mënul ñak mais am droit jox ñeen relay quand même parce que gisuma lu may ci fajjati moo ma wax dina nañ bind rapport jox ma ma arrêté de 1000 cas ñu teg caméra yi lépp taxaw su ma la garanti la ne la mille yëpp a benn taxaw mais yàlla ak moo tax may def kaat day yi de sarax ah waay merci encore Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy hmm. merci encore Mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha allahumma mu jo dogut allahumma mu jo dogut kon nag yàlla na yàlla sàmm ko te aar ko sànni ma baagi ma doxal jërëjëf mbokku internet yi lañu ñu war a wax day jeexul waaye waxtu wa jeex na takk kon nag sëriñ bi nga tàggoo ko askan wi ba beneen. bàkk tey sargalati bàkk tey ñaanalati ki ma amul ku dul moom bàkk tey sargalati ki nga xam ne bu dul moom point point muy Mawlaaya a cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha ku mu am yàlla na raw ku mu am yàlla na mucc yàlla na borom bi dund la junniy at. wa ma salika ala laahi bi asisin wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sant sama mbokk bopp bi kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaw ndax daf ma wax wax bu doy waar moom kenn bëggul mu ne man dama defe ne dafa am ñu ma yéenewul sëriñ Moustapha motax ñuy sét jamono bu nekk luñ ma sosale ndax ñu isolé ma ci sahadra mune ma te tiitaruwuma yàlla moma bolé ak yow mune ma te kenn mënu ci dara nak wa tabaraka lu mu defoon daw ci gàmmu gi def na ren lu ko ëpp ma bëgg ngeen bàyyi bàyyil ma fi kenn bëggul bu ngeen xamul ci lu mu nekkit ngeen man ma xam ci lu mu nekk waaw ndax ñemewul teg tànkam fu ma ko waxul walla bu koy def nag day fekk yëguma ko